âge la ñu la xale yaa ngi nii mhm. waaw xam nga yaa ngi dégg. am na mhm. ci ñu nekk ci kër gi jéeg ji ci kër gi. Mhm. Euh, comment dirais-je amuñu ay papiers yoo xamante ni pour salle de massage kon ñooñu euh, bu dee dàmp rek ak noddanti ak loq-loq mën nañ ko. mais sa jabar sax boo ko mayee 15000 wala 20000 bu duggee caaroy gii am na boutique yu baax yoo xam ne lépp loo soxla pour sa ndiggu jëkkër baaxaat ma nga fa. mais boo ko boo bëggee feneen. ah da bëgg feneen. ah léegoo génn di ko maye feneen. sama kanam. am na di. gis naa ku ne damaa bëgg say ma ko sa jabar ak mu ne ma noonu noonu. njaalo ni maa bëgg a say. ma sa jabar nga fi xanaa sa jabar dafa ne ma noonu njaalo laa wax. xam nga kon réew mi lu nekk am na fi. kon day sàppi waate. waaw ah moom moom. bañ dugub bi. moom da koy sàppi <laughs> moom. mais nag quoi qu'on puisse dire. respect dafay ah yéen na ah, ngeen di dem. Euh, ñun demuñu fenn ah nay leer fiya buñu tojal yeen ñaa ñep yor na seeni numéro jabar mais liñu mëna wax ci li nga xamanteni mom moy procès bi mhm. ak li fa xew ak ci suite beauté il paraît que sax euh nday xadi ndjay momit euh, mu ngi ci ay jafé jafé yu miti dafa tollu an digënté ba paré dafa tollu an digënté momit wax deug yalla manam mbir mi dal la ba joona la ba jogo xamni fi toll ni ken xamul fu fu fu wané di wuté wé ki bon euh jafka hmm. wax dëgg fa neex yàlla euh, du neex ñu rëccal ki nga moo di. Baye Faye du neex de. du du lu yomb. Mm-hmm. parce que man yaakaaroon naa ni fi mu toll nii affaire du egg si fii. Mm-hmm. mais li xam naa nag li affaire bi xawoon na am lënt lënt ak kii moo tax sax ñu naan aj ak aji mais fi mu toll nii xam naa ne du neex mukk pour mu rëcc parce que euh, loi wu viol dafa dafa sew ba. Mm-hmm. xam nga ñu bëri dañu def dañuy def erreur des fois dañu naan lii violé ma ko nangam violé ma ko fekk bu ñu ko xoolee ci ci loi day day fekk yow violé bu yàgg. Mhm. sa jabar rek nga ne ko nga force ko ci bu la porté plainte da ngay mhm. mais loolu viol la mais loolu man damay wax ni fia ah, bugguma ñu ñu ñu ñu valoriser ko ci image wu nit ñi daal loi la boo xamante ni daal mun nañ ko mbëpp mbëppal ci suuf parce que soxna si nga euh, takk ci farata yàlla sunnan Muhammad def ci moom ay xéewal mu ñëw ngeen war yéen ñaar di seppalante ci di leen donc bu déggee loolu am na ci ñu capable ñoo xamante ni sa jëkkër sax dina la soxla ci jamono juñ toll ni nga naj sa bopp te boo najee sa bopp yaa ngi uta sa bopp musiba mën na génn dem def du n'importe quoi bu amul doole ju mu takkee am na ñeenti téeméer yu mu yóot bu feneen. dem def fa lu bon. loolu moo ci gën a parce que yow sa jëkkër woo la nga lànk rek yàlla mais loolu mooy mooy tolof tolof bi fa loolu mooy tolof tolof moo gën a tuuti mais nag. te li ci gën a garaaw euh, mooy dañoo criminaliser viole bi. Tarbiya ah da dangay am benn xale bu jigéen boo xamante ni da ngeen di bëggante yéen ñaar nga war ko dem takk keneen mais mun na taxaw fële def ay mbiram ni daf ma violé ñu tañax tañax tëj la dix ans de prison. Mhm. tey mën nga xëy xëy am beneen problème bu mel bu bu gën a doy waar boobu léegi maanaam viol daal. Mhm. bu ñu ko bëggee jàppee ni maanaam moo tax mbir mi lépp lu ñu ciy def rek lu nekk rek nañu ko topp ba mu set wecc mhm. ñu xam ni diw moo tooñ kii tooñul ñu génn def lañu war a def. mais bu ñu bëggee viol ñu bëgg ko criminaliser nii nii ak xale yi nga xamante ni danoo wow bët fi mu toll nii. attan nañoo boole téeméeri góor ak juróom-ñaar ànd ak ñoom def naka su dul noonu taxaw ni dañ maa violé man gis naa koo xamante ni nii li may wax ni lu am la yemul benn yoon fu ne dem na fa ci àddina bërki démboo njaay lañ ko doon mbaxalal ñu ni daa am ndaw kooku fu mu ko jële te pourtant lu ne def na ko lu ni loo xamante ni lu ma leer na nii sama bët yi kon c'est-à-dire que ni réew mi toll na foo xamante ni tey xale yi di ko di ko jënd waaw mooy ndaw xale yi dañuy jënd ndaw naan ko sànq sama émission moo def am na ku ma commentaire ne ma nan nga xamee ne ku ñu violé day métti day day nangam jigéen bi ci dëkk bi nga dëkk loolu moom garaawul loolu moom jigéen dootul ànd teg sagoom baytal si aji sar buñ koy violé nan lay talé diw iwil. di diw iwil. wi mo la iwil bi di waté la tax ban bi. non aji sar degu ñu la viol mo nek lo wa degu mo wax la rek dama ne la. aji sar dafa am ku commenter na ma fiya aji sar nan lañ koy nan lañ koy violé muy diw iwil. mën na nek di diw iwil ba nopi nak di suus di metti di metti <laughs> suus di métti. ah xam nga loolu mën sama commentaire lu leen neex lañ doon def. xam nga loolu mën na nekk bu dee koo xamante na sëy buñ la violé mënoo wax ba mu métti. lenn moo fay nekk mooy naqar bi nga xamante ne def nañ mm. mais ay métti moom du fa dafa am. waaw mais il paraît que wax na ko nee na nee na Adji ku bees parce que koo xamante ni ñam nañ la ñamaat la ñamaat la. nee na waaye ah. dañ ne <laughs> Sonko ñëw na fa ñaar ba muy juróomi yoon. <laughs> si eh si na moom jànk laa. ko jànk man xaw ma dara. lu lu neex rek ko xamal. kon neex na. Ah, lu neex kay du viol. viol du neex. Eh, c'est-à-dire maanaam loolu daal. mais mais su ah, mais viol du neex. mais mais aju wax na ko nee na Sonko ñëw na fa ñëwaat fa ñëwaat ba juróomi yoon li mu wax ba juróomi yoon moom li mu wax ba juróomi yoon de force na ko ba juróomi yoon. kon nag juróomi yoon moom foofu yooyu yoon bi yoon bi set na wecc yoon bu leer la kenn mënul wax ni métti danga fa. Mhm. juróomi amul métti juróomi yoon ndax yoon bi leer na nañ. Mhm. yoon euh, tool bu nu bay bayaat ko bay ko ba mu bayaat ko xam nga ne ëgg yi dañ nañu bu yàgg. Mhm. kon nag wax dëgg fa neex yàlla mun ñoo sukkandiku ci ñu ngi koy violé muy diw ay ay kii mën na diw parce que yoon bi leer na mën nañ ko violé léegi mu xëy dem liggéey kon viol du question que buñ la heure buñ la violé rek daa war a métti déedéet du heure buñ dafa war a métti bu la dajee lay métti mais pas buñ la violé métti mère bu sëy ba tas am quatre-vingts mën nañ koo violé. Mhm. mën nañ ko violé de maanaam sëy moom ci lu coobareem loolu mooy viol. ma ñëw bëggante ak yow ci loo xamante ne nangoo ko même bu fekkee am nga 160 doom bu bañee rek. boo tëddee boo tëddee moom. su ma bëggul daal bëgguma. bëggul bu bëggul daal ku bëggul mm-hmm. mais bu fekkee la ngeen di def neex na la mu neex si yéen ñaar ñëpp nga xëy na boo jouré damaa violé te ba yaa fi <laughs> euh, en tout cas daal. mais ñu ñëw ci Ndey Xadi. Mm-hmm. bi. Mm-hmm. nee nañ gars yi nee nañ moo des gor moo des góor waxi démbam ba tey mooy waxi tayam mhm. mais dama gis benn vidéo ñu ne mhm. nday xadi ne Ousmane Sonko bi mu koy soog a gis juuru tabaski la woon mhm. mu ñëw këram ab ko commenté de Ousmane Sonko tamit juuru tabaski lan lay def kër jàmbur mais mun na am douleur mu dem fa quoi mun <laughs> na am douleur mu dem fa c'est-à-dire c'est-à-dire yow euh, fiyaa mbir boobu dafa sew parce que jouru tabaski jouru tabaski Ousmane Sonko la comme di rey xaram Eh, am ay gan yu ñew di kondokel sisi ci bes bek yu ni mel mu wacc ko fa dal di ñew ci suite beauté peut être yëg na métit ban mo jaral na jiru tabaski am bi ray xari rek waaw même eh, eh, loxo bi ñuy ray xari rek bi ray xari la la amé <laughs> ah, lo ci man dafa am douleur dem na fofu <laughs> douleur la am douleur la am na douleur douleur la am wa <laughs> waaw lu ko dindi douleur dara du ko dindi di heure bu ñuy xari wa mu dem fa. waaw di maase wu ji. kon Ndeye sa salon bi sa sa bayre bi. ah mais mais Ndeye yi comme li nga wax rek euh, ñëpp nee nañ gor la. Mhm. parce que li mu waxoon démb ak bërki démb loolu la indiwaat xët kaat ko ci taal bi nii lii la mais nag euh, ba léegi rek fii man li may wax à chaque fois rek mooy procès aji Sarr Ousmane Sonko bi euh, maanaam mbir yi dafa xaw a jaxasoo ba léegi. bu lii leeree fii. après les lèvres, il paraît que avocat ou Ndeye Ndiaye dañu guedd ngi mhm. avocat Ousmane Sonko yi def la même chose. ndax euh, bi avocat wu ñii bëgg ma sérieux ma en tant que journaliste xaaruñu li ci yow Né la ñu xaar Fallu. Ah. waaw sérieux. waaw yaa ngi dégg. Fallu bu ñëwee inshallah leral leen ko mm. ñun dañ fee toog juste euh, pour joxe information aussi waaye pour kafaale pour reetaan. Mm. parce que gis nañ ne aussi pression réew mi muy doxee. fi mu toll ñëw sérieux ma sérieux. Mm. dinañ kaf dinañ ree ah Sadikh Ndiaye ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax yow May Diop vraiment dañ fee toog pour joxe utile. et l'agréable. agréable. Euh, da nga koy valoriser ñoom euh, mani

Ah. bon les gens je vous salue euh, bon maa ngi nuyu bépp téléspectateur boo xamante ni yaa fi nga xamante ni moom mooy au niveau de 5TV Sénégal malgré tout tey ñu ngi waxtaanee li nga xamante ni moom procès Adji Sarr Sonko di suus. <laughs> xanaa day jékki ne yëkkati téléphone bi wane na ko. oui wan na gars 11 na yor xoolal. waaw mais bii ah. di suus alpha mi ngi côté terminal lañ ko dem uh, déglu allo oui alpha ñun ni xolal ñun trois pom bi eh. <laughs> bon euh, revenons juste ci ki nga xamanteni mom moy euh, ndey khadi ndjay ah. euh, gaay yi comme niko fiya waxé rek ngeen ah. xamni li allo 5 la dañuy dégganté ak yeen l'animatrice bi nga xamanteni tubarkal lu baax la xam ah, bu ngeen ko <laughs> joar rek les journalistes bu le nga xamanteni day costume caravatu waaw ñun ñu fi tok xam ngeen ni ay comédien lañ donc tay buñu ñëw ci ki nga xamanteni def leen ma comédienne. waaw comédienne waaw. Ah, <laughs> waaw. réew mi ni toll. Ah, euh, bu ñu ñëwee ci Ndeye Khady Ndiaye. waaw Ndeye coono bu metti dal na ko ci li nga xamante ni moom mooy Sweet Beauté sànq bi ñu affiché euh, affiche Sweet Beauté bi man li may laaj ba xam mooy euh, kii boobu. tableau bi ndax mu ngi buntu kër Ndeye Khady Ndiaye ba tey wala dindi nañ ko. Hmm. parce que c'est important. est que booy bàyyiwuñu waaw booy bàyyi nañ de. waaw booy non booy dañuy bàyyi parce que euh, li fa arrivé yëpp ci diggante. Adji hmm. Sarr euh, Ousmane Sonko coow li juddu fii Ndeye Khady Ndiaye tey. ku gis Ndeye Khady Ndiaye xam ne bari na lu bari loo xamante ni mënatu fa def. bi nga xamante ni euh, affaire bi mu ngi am moment bi affaire bi doon am. dafa accouché woon. yor doom bu ndaw. waaw maanaam lii mu fekkaat ko ci ëmb. diggante bi ko ci ëmb. Mm-hmm. kon cest li procès bi di métti métti métti métti. mu ngi métti mooy mu ngi métti ci suuf <laughs> yéen a commentaire ni ma saaga. non c' est à dire donc c' est c' est important. nga ne Khady Ndiaye gis nga moo tax mbiru Sonko. mbiru Sonko nga ne Ndeye Khady Ndiaye. mbiru Sonko dafa jar a bàyyi xel. waaw Ndeye Khady Ndiaye bi ñuy jàpp procès bi. waaw dafa accusé prématuré yor doom ju ndaw di yóbbu hôpital di yóbbuwaatee le 23. waaw mu ngi nekk en état de grossesse.